ñu am la nga xamante ne mooy moom la ñu tudd ay pôle ci biir université bi coordination bi ne comme pôle yooyu tënkuñu xaatimuñ ko ci texte yi nga xam ne moo ñu tënk kon mënuñ koo nangu faw loolu ñu ñu ñu dindi ko ndax buñ nee pôle te nekkul ci suñuy texte loolu day mel ni loo xamante ne lu lu awul ci yoon la amul du am base légal donc loolu moo tax ñu ne kon pôle yooyu faw ñu dindi ko mënuñ cee tënku ndax nekkul ci suñu texte de gouvernance alors li ci tegu itam ci ñaareelu poñ bi mooy li nga xamante ne mooy suñu euh, organe de gouvernance bokk na ci nag école yi ak département yi ñooñu bu fekkee am na lu ñuy décider donc dañ koy waxtaane ci département mu jàll aussi ci euh, conseil d'école yi bu ko defee mu jàll ci yeneen organe de de délibération les organes délibérants du département yi dañoo seetlu ne aussi am fofu foofu ab rëq-rëq ndaxte euh, année bi dañoo budgétiser fukki poste enseignant chercheurs à ay jàngalekat ñu euh, répartir leen ci écoles yi école bu nekk euh, nombre de postes qu'on va recruter mais département yi ci nous ñoom ñoo war a gëstu co, xool ko profil yi ñu bëgg recruter daal di koy jébal kilifa gi mais bi loolu amee biñ jébalee profil yi dañ ñu ne loolu méngoowul ak li nga xamné mom lañu la ñu jël dañuy def recherche nam dañuy def aussi enseignement kon pédagogie bi ba neugani donc donc ñu xam kañ lañu tambalé tàmbalee nam le 1er décembre ba légui lañ inauguré université bi mais bu légui léegi ñu am date bo xamné ne na ci suñu bop bo xamné ne na ci kilifa yi bo xamné mën nañ wax né suba wala gannaaw suba la tambalé

tegu ci le lu leer loo xamante ne texte yi ñu gouverner donc dana dana répondre dana correspondre ak loolu léegi nag bu fekkente dara amul jóge ci kilifa yi loo xam ne mën nañu rassurer donc danañu déposer préavis de grève boo xamante ne nag danañu jëfandikoo lépp lu ñu yoon may ngir fësal suñu naqar ak suñu ñàkk ànd ci li nga xamante ne moom wax fii lépp